kenn moomul kenn wante lu leer ba leer comme ni ñuy wax ci olof euh, ku ku dem ñu reer sa ginnaaw euh, ndaam nekkoon chef de l'opposition euh, ba mu demee ci majorité présidentielle boobu la nekk foofu léegi nag mënuñu tere kenn mu wax mais chef de l'opposition euh, ça ne se décrète pas Il y wax ci donc loolu ay fait mais loolu du lu am solo lu am solo comme nous opposition a bu ci mon moom ñu défendre intégrité euh, union union sacrée union sacrée hmm. double tour de force premièrement nous dañu nous faire ñaari couleurs yi nga xam bokkuñu société civile ak euh, way politique yi société politique mais également ñu ay opposition yi nga xam ne autour d'une même table donc bu ñu ba am loolu war nañu fexe ñaari mbir dara ci majorité présidentielle du appel du dialogue du nomination du gouvernement élargi li nga xamné ne mën na ou entériner en tout cas unité boobu. mais aussi war nañu faire bëgg opposition bi nañu ko taxawalé noonu ñu sàmm ko ba kenn du ci dugg pour tas tay bu bëggoon dugg nak ci F24 mom Idrissa Seck. mais koku F24 ñoy apprécié mais am nañu règlement intérieur am nañu charte le moment venu peut-être euh, ñi nga xamné ñoo nekk ci plénière bi dinañu statuer mais man suma position laa joxe. sa position moy doo ko accueillir ci F24. non position bi ma jàpp tey moom mooy xeex bi ci euh ñepp am nañ ci place mais en tout cas tay ku ci nek war nañu set sa jaar-jaar ak fi nga xamné ne euh, moom nga fété won Sénégalais ci wér yi ak ci at yi passé parce que man mii di wax yéen ñun ñepp ci 2019 euh dañu jàppale ki nga xamné mo moo opposant bi nga xamné ne nañ né mom moo mënoon a jàmmarloo ak Macky Sall

que Mangi encouragé parti politique association syndicat nous rejoindre dynamique bi nga xam ne force vive de la nation mais luñ ci teg mom moy buñu bolo buñu bolo ak n'importe qui parce que dañu wara voir à li nga wax maître c'est-à-dire n'importe qui li wax ah. c'est-à-dire muy mon muy kenen ki nga xamné japp nañ ni en tout cas euh, dafay nekkoon ci Macky Sall ba mbir mi ci si mu ci opposition. mais Aminata Touré waaw. Hmm? comme non man sama position laa lay jox. Aminata Touré ba mu jëwee ba mu hmm. yegsee ci boppam en tout cas ci ñu a pour en tout cas F24 bi euh, mën a antu mën a am solo euh, def réunion ensemble nekk na ci moom lu mu wone en tout cas tey moom mooy pas-pas bu mat sëkk et puis lu mu mos di bañ moom mooy troisième mandat discours am varié wu ci ñun gis nañ ñi nga xam ne ba nu duggee commencé nañ en tout cas di même bu ñu ko waxul seen i ñoñ di ko wax ne sa waay mën na am ñetteeli mandat bu ñu ñëwee teg benn plateforme ponk bu ci jëkk moom mooy vingt 27 dañu ko war a sàmm kenn ki nga xam ne yoroon na discours contraire bi mais justement maître maître la F24 di peser sur la balance euh, be, n'y ni a le président de la République qui mu bañ la troisième candidature. déjà acte bi ngeen posé réponse oui, je pense est sorti de Korité parce que li mu wax et que li ñëpp il maintient son ni non ni oui alors je pense que est également on a évaluer euh, lan la euh, front peser pour faire bi mu euh, sur le principe ci euh, euh, a que présenté au président Macky Sall ci troisième candidature ndax dina ko antu front boobu dana peser lu bari lu déterminant ci wér yi di ñëw mhm. et que front bobu du dara lu dul peuple bi nga xamné mo moo taxawoon 2012 ne ñetteeli mandat fi dañu ko fi dakh ñëpp manku ci ànd ci peuple bobo ba sànq ci suba le Sénégal peuple bobo malgré les divergences mo remobilisé wu Né luñu ñu lool Ablaye Wade buñ ko Macky Sall d'autant plus que on sera plus intransigeant avec Macky Sall que ci ñun la bokone di xex ma ci yokkat leneen li nga xam ne ça va m'amener encore pour d'être beaucoup plus intransigeant ma nekkoon avocat wu Mamadou Diop mu génn àdduna ma gis naqar bi nga xam ne moom la famille am tiis bi ak jafe-jafe yu ñu dund et kooku dara taxul bu jën àdduna parce que tout simplement leader yi dañu ñëw gëmloo leen ni fii ci Sénégal nit waru fi laaj waru fi am ñetteeli mandat mais ci ay actes yi ngeen di posé la ay démarches. ay activités yi parce que ordinateur yi plateforme yi taxawee ba légui non yéen a ngi yéen a ngi nelaw de. non non non nelawuñu plateforme bi. Mm. peut-être bo invité Mamadou Mbodj wala monsieur Sané. Mm. dana la wax lu leer. plateforme bi mm. agenda bu gudd. ci ay weer yu bëri. ñom dañ ko détaillé peut-être ils auront l'occasion de vous le dire parce qu'ils sont beaucoup plus man membre là rek. ci bir ñom ñooy wara wax ci turu kuréel yi. mais luma la ci mëna wax mom moy le 12 mai annoncé une marche sur le plan national. Mm. et que marche bobo leader yep danañ ci et que bobo mooy le premier test grandeur nature. Mm-hmm. et que boulot le passé F24 bi de ko nara commencé déjà implanté côté ci diaspora bi. Mm. na am ay marches ak Sénégal et en même temps à l'étranger et que ci département bu du Sénégal dana am benen aussi comité bi nga xamné moy représenter représenté F24 donc voilà par, rapport à 2011 F24 b ce qui compare comparé M23 2011 a une différence parce que M23 hmm. dafa euh, euh capitaliser les vives luy force vive euh, yoo xam régime en place mais F24 bi da ngeen di dem rang dispersé F24 à côté il y a le parti démocratique sénégalais il M24 hmm. il y a aussi le cas Idrissa Seck qui a été ne ku euh, vous partez en rang dispersé est-ce que nous diminuons cette force. nous est dispersé parce que l'élection y passée, on na ku nekk lu peser. parce qu'une plateforme sans le PDS euh, hein? non euh, euh. non Malgré suis fait que 2012 aussi PDS moo au pouvoir 2011 2012. Hein, <laughs> hmm. et que la dynamique bi changer. changé. xam nga Moi, ci changé moom a ñaari mbir. moi maturation intellectuelle au niveau des Sénégalais. mbirum ñetteeli mandat fille dafa nekk li nga xam ne ci at yi passé fukki at yi passé daf fi sédimenté maanaam am na ñi nga xam ne élection yi 2019 soxlu leen woon mhm. mais ba ñu déggee ne sawaay day jëm waxu bala sax da koy def mais day jëm pour am troisième mandat ñooñu dañu dellu si ci langue bi mhm. mais aussi tey boo xoolee électorat bi eh, yokku na Euh, tey parti politique yi man mii di wax ak yéen ndaam maa ngi woon ci acteurs yi nekk woon chef de parti nem nekkoon naa directeur de campagne yu nit ci biir élection yooyu euh, ñeneen aussi parti yu bees donc dafa am benn mutation bi nga xam ne société bi dafa changé donc mën nañu jàpp ni tey Euh, de li nga xamné moy ay PDS yu ab wala ñeneen day parce que amna ñu bari ñinga nga ñinga won ci biti duggu ñu ci langue politique bi politique mosu a mais tey dañu gis pour ñu soppi ko maanaam foog ñu système bi nga xam ne fi nekk. et que vous, l'occasion de le voir en tout cas que mobilisation bi nga xam ne dana ci mobilisation bi c'est l'échec aujourd'hui des politiques madame muy nous avons ñi en 2011 2012 légui yaa ngi rappelé que yow yaa un avocat Mamadou Diop bi nga eh, gis nañu déjà ni mu fi des moments sombres quand même de l'histoire du Sénégal vous revenez 10 ans après euh, euh, ou 11 ans après ci ben encore kuréel bo xamantene fait M23 fi F24 yéen ñëpp pouvoir comme opposition que c'est un échec là que vous devrez reconnaître. non euh, d'où échec ou opposition d'où échec ou. pouvoir société civile c'est suñu échec. Euh, mën naa wax société civile euh, ña nga xam ne ñoo doon xeex ak ña nga ñoo taxaw parce que c'est un diable. na. par contre échec ou président de la république la taye situation bi ñuy vivre gàcce la gàcce la ci bépp góor bi nga amna ay nit yi nga xamné parce que dañ leen doon ne leen fi ci dëkk bi waruñu am troisième mandat ñu message boobu tax ñu taxaw ba ne pare pour sacrifier wu ñooñu tey ñun suñu devoir ña nga xam ne ñoo taxawoon 2010 2011 2012 moom mooy ñu a mémoire moom mooy lan les bras ce sera un double assassinat Mamadou Diop et consort L'autre parce que dañu une bombe physiquement mais dañuy leen di c'est un esprit ou combat Lolo moo tax dañu devoir de mémoire Lolo moo aussi, que aussi caractère historique bi nga xam Moy F24 bi nga le Moy continuer combat bi. juriste dégg nga président mu prisonnier politique à Sénégal.

enlever les opposants filles territoire sénégalais voulais pour vous, parce que police gambienne opérait sur le territoire sénégalais L'homme, pour prisonnier politique mm-hmm. prisonnier politique nous li kenn ki nga dafa dañ ko mm-hmm. politique kan justifier exemple mm-hmm. Diomaye Faye du par du c'est pas parce que dafa nekk suma mbokk séeréer yu njaga ñaaw mais dama leen di jox parce que loolu day c'est c'est symptomatique d'une certaine manière mu ñëw def poste parce que tey day fàttali kaaw Adama Gaye ma nga xam ne aussi défendroon naa ko def poste wax lu muy wax mën nañu d' accord wala ñu bañ a d' accord ci lu mu wax loolu mën na wuy ji mais ki nga xam ne des fois am di liggéey jiite le politique ko am nay garantie de représentation code de procédure pénale lu mu wax mom moy fi ci Sénégal motax juge war nañ xolat sen togaay sen taxawaay xamné ne Macky Sall day dem te ñoom dañu am responsabilité le premier gardien des libertés tay lu code de procédure pénale wax moom mooy looñu la mën a ak lo mënti def moom euh, principe bi mom moy dañ la wara bay dox sa soxla ba saa la tous les jours ñu koy def. tey lan moo mën a justifier ñu jël Diomaye fay yóbbu ko sous mandat de dépôt lan moo mën a justifier ñu jël 300 membres membres parti boobu ñoom ñëpp def leen sous mandat de dépôt wala ñu jël leneen. du dara du dul moom la dictature yi Yaya Jammeh ñeneen di def moom mooy dañuy utiliser cette détention préventive comme benn moyen pour punir adversaire politique certaine manière euh, dañuy ñëw de rek alors que tay pour nous, tëj de kasso def na mandat de dépôt la Lors xamuñu fu situation ak ñeneen am maire nga gis nañ fi mais lu ciy tegu moom mooy tey que juge poser des actes d'enquête à proprement parler que tey pour ñu wax ne dafa am preuve alors que poste Facebook bi ñëpp jël capturé nañ ko. dafa a am concertation frauduleuse pour ngeen déggoo donc loolu rek moo lay pour wax ci cas symptomatique bu emblématique plutôt tey loolu la ko hmm. euh, loolu posture euh, di et que de toutes les manières bah, nous ne pouvons pas appeler au dialogue ce n'est pas sincère. les conditions ne sont pas réunies pour exactement avoir le dialogue et pourtant le dialogue vous ne pouvez ubbi mettre buntu mettre hein. ñu mën a waxtaanee seen i jafe-jafe li ngeen bëgg moom mu teg ko déjà am na ñu ma dégg ci biir F24 ne euh, déjà teg nañu euh, condition pour dem ci dialogue boobu est-ce que dem dem wuy ci waxtaan yi mënta ubbi yeneen bunt parce que tamit quoi qu'on puisse dire <laughs> jafe-jafe bu ne ci ab table waxtaanukaay la ñu koy. waaw la ñu koy lijjante. man suma gis-gis laa la wax. Mhm. après F24 kuréel la. c'est euh, des coordonnateurs, coordinateurs, seen assemblée ont décidé démocratiquement mais lu ci mënti am man lu ma ci moi le bureau de dialogue c'est pas la première fois ñu ci woo gis nañu résultat wu dialogue bi di fi amoon beneen bi mooy ma la stratégie la moi, il mooy gis nañ opposition bi réussir une belle tour de force une unité sacrée union sacrée bi nga xam ne def nañu ko nan def mieux divisé pour mieux régner Ben, ben bi moi aussi euh, dialogue politique bi gis nañ dans le passé pas pàcc opposition a la ñu l'engagement dem comme lolu amna Faut fukki fa fukki weer a ñu un wala lu ko yes donc dama japp ni faut que l'opposition se concentre sur l'essentiel il y a un moment pour pour que dans la vie man je suis très diplomate je suis un grand négociateur mhm. euh, même sur le plan international mais il y a un temps pour dialoguer. Mhm. et il y a un temps aussi pour agir d'une certaine mais maître yaa Lédi, wax euh, porte parole F24 membre nga fa rek ragaloo ragolo pàcc ci boobu la plateforme euh, favorable ci dialogue bi le président Macky Sall woote. non parce que. moo xam mouvement qui fa nekk parti wala Ben pàcc. Une pàcc jàpp pour ne favorable. Mhm. peut-être. Euh, majorité bi rek mo mën favorable parce que ba nga soukandiku ci règlement intérieur yi. Hum. ñuy jëlee seen décision. Hum. mais li ma gëm man gis ko ci sen détermination. Euh, jàpp naa ni tay comme nous ma la waxee sànq. Hum. am nañu agenda bi nga xamné agenda bu gudd la. parce que ci juróom-benni weer lañu ko nar a la et que tay ñooñu weesu nañu stade taxaw di dialogue sauf si président dellu si na ci poñ yi ñu ko wax moom mooy mbirum troisième mandat mu teg ko ci suuf. mu ne ñu. Euh, non ou clair rejoindre plateforme. Et pourtant, jusqu'à présent, jusqu'à présent, il ne s'est pas prononcé quand même. Mhm. Vous appelez à une manifestation le 12. Est-ce que vous du Tchimbat les germes quand même de la violence parce que vous manifestation bu ko avez defati ko defati ko ci ci non manifestation euh, c'est que Sénégal le pouvoir bi ci boppam sax ñoo ba xel ni, y manifestation rek vous mais en France traité, il n'y a pas de manifester tous les jours parce que c'est un moyen d'expression démocratique c'est-à-dire entre deux élections nous, opinion publique peuple il faut que nous nous mën a wone seen ànd tey wala ñàkk a d'accord situation d'une certaine manière ñun de ñeenti poñ Nous, nous xam nous, daf ko nërmeel yooyu la ñu taxaw temb nekkoo mu teggi tànkam delloo si xelam et puis nekkul rek mbirum ñetteeli mandat wala parrainage mbirum liberté yi su may wax mbirum liberté yi euh, weer yële passé maag Pape Ndiaye ñoo nekkoon ci même plateau wolf mu may interviewé donc mbir mi mën na dal ci yow mën na dal ci keneen donc tey manam nit nekkatu fi sécurité en sécurité buy def liggéeyam parce que Sénégal rek nga mën a gis ci Afrique soowu jant ñi nga xam ne dañuy dem prison muy ay médecin muy ay journaliste dañuy dem prison parce que tout simplement dañuy def seen liggéey loolu aussi ñu ko dund fii mënuñu ko seetaan léegi nag lépp a ngi ci loxo fu mu wootee opposition bi dana ko wuyu bu dee moom nangu na dox ci ponk ak sart yi nga xam ne moo ko fi teg muy état de droit xayrun bu ko defu aussi danañ ko won ne dëkk bi boobu ko tu ci l'état état de droit boobu falaa lay interpeller en tant que juriste muy les contrôle judiciaire Sénégal nous maa wàññi ñaata nit ñoo nekk contrôle judiciaire. sous contrôle judiciaire non seulement acte wuñu leen te ba tey jii kenn yeewu len, ci ñoom ba léegi yoon ak leen di top, ñenn ñi seen i passeport mu ngi ci bureau euh, juge pourquoi loolu noonu ak tamit en tant que juriste mbir moomu nan lañ mën def ba mën ko saafara parce que on donne beaucoup de contrôle judiciaire bon lolo abus man. ñenn yi ak waxuma sax contrôle judiciaire yi ak bracelet. Mm. Mm. ak bracelet yi ci laa da naroon ci man bracelet yi ci boppam. parce que pratiqué naa mais lu jiitu bracelet yi y' a def contrôle judiciaire ba indi ay bracelet. Mm. man dama tàccu ne enfin. finalement danañu mën a alléger en tout cas conditions yi. mais ban li ma jàpp loolu man maa ko gëm ça n'engage dañu fooye bracelet électronique dañu ko fooye parce que tey. Eh, mbir mi dafa wulli ñaay mais nit ku lay mal soo waxee ñu ne dañ lay solal la dañ lay solal bracelet électronique et tout ça yooyu ci boppam moo tax ma jàpp ni eh, dañoo woyofal mbir mi c'est-à-dire le fait de priver quelqu'un de son droit d'aller et de venir c'est un acte grave c'est tellement grave que on doit veiller à ce que ce soit limité dans le temps mais ñi lay wax depuis 2012 le régime parti démocrate sénégalais nous am nañu ne ci gouvernement comme le cas du ministre Omar Sarr il a été placé sous contrôle judiciaire procès amul doo xam ñoom seen cas fan la mujjee mais loolu ci boppam waxuma contrôle judiciaire mais la plupart fii euh, liberté provisoire liberté définitive maanaam duñ la lëtt duñ la fii mais loolu bon, loolu ay dysfonctionnement la ci justice mm. moo tax yooyu nous nañ programme fii ci Sénégal respecter effectivement euh, liberté que nous ñu aussi que ce soit un motif légitime et que le principe de bonne détention et que exception n'est que liberté mais ce sera l'inverse c'est-à-dire nous jouer le jeu normal effectivement d'un état de droit booy ñu aar à les pour alors nous euh, avons wax ci candidature déjà euh, ci F24 euh, avant de fay dem rek nous nañu ni candidats yi candidats yi ci opposition est-ce que encore une opposition à la présidentielle. non le Japonais, jàpp ni force le mën pour opposition parce que nous même am moom mooy même avons waay bu demut dana am ku génn ci coalition wala ci parti que nga xamne boko fay teewal euh, ñun loolu bañuñu ko on est pour la libre participation ñun jotewuñu sax ak Macky Sall dara ndir ni lenn la rek c'est-à-dire constitution moo ñu teug mu ne ñu fii ci Sénégal nit nit mënu fi def ñaari mandat yu toppante ñetti mandat yu toppante plutôt donc loolu donc ça veut dire que tey suñu stratégie opposition euh, ku nekk war dem xam lu am du moment où am nañ benn vision tey ñu ngi liggéey pour am alternative politique bi nga xam ne dañ ko fiy teg li nga xam la Sénégal dund ci 12 ans yi passé donc loolu peut-être bu ñu demee foofu bu dee yàlla kenn de def na plutôt que kenn ci ñun jàllul donc bu jàmmarloo candidat au pouvoir bi mais ñooñu bu ñu dajaloo dañu koy daane donc loolu mooy stratégie moo tax aussi day permettre ñu respecter liberté wu ku nekk maanaam nekk nañ ci ay kuréel mais voilà ku ci nekk aussi da ngay am vision lu tax ku nekk am parti parce que tout simplement ku nekk am na lu mu namm ci Sénégal. am na lu mu koy gisee et que loolu dañ ko war a respecter nangul ko ku nekk. alors au-delà peut-être coalition parti bi nga jiite euh, yéen fan ngeen toll ci waajtaay yi ndax. Euh, itam li nga xam moy peser ci yeneen candidat yi nekul ngeen di ci xalaat sa su ne muy déjà yéen wax le président Macky Sall warul dem mais instant yi bi ñu jëm xamuñu kan moy bok ak kudul bok bokk loolu est-ce que newul poids ci yéen candidat yi euh ci jamono ju ñu toll. waaw mais loolu mo warta am. Mhm. ba ma saisiré cour de justice de la CEDEAO bi en 2018 luñ ci njëkk wax moom moy tay sécurité juridique moi amul ci élection manam sécurité juridique bu ngi mel ni rek boy def examen xamulo ci yan anam lañ la wara a testé wala ñu naté la euh, donc lolu tay mom moo ñu dab mom la tudd parce que tay amul ben candidat bi nga xamné ne euh, mën na feug dënam leer na ne dina dina <laughs> euh. alors que lolu warta mën am d'une certaine manière mais lu ci nekk mom moy ku ci nekk yaangi ci waajtaay ñun en tout cas euh, nous avons, depuis ay avant maa ñëw fii émission bu le passé di sur le plan national et sur le plan international pour structurer suñu parti am suñu démarche bopp bi nga pour ne bu jotee en tout cas danañ ko xam sénégalais yi danañ gis aussi innovation bi nga xam membres du am par rapport ak suñu approche parce que ku ci nekk euh, da ngay rythme style euh, peut-être ses stratégie d'une certaine manière en voulant tous euh, hein. être candidats à la présidentielle ndax du favorisé euh, favoriser pouvoir en place bi ndax nous candidature di l'électorat, bëri électorat bi di gëna fractionné wu té lolu day day profiter pouvoir en place mm. waaw lolu loolu pour na un car bloquant Donc, mm-hmm. <laughs> xam nga euh, donc car bloquant plutôt amatul mm-hmm. donc tay nous mbir mi euh comme nous ma la euh, soit da ngay nekk parti bu am doole. Hum. nga dem jall ou sinon effectivement il faut une dynamique unitaire. Hum. au second tour pour mën jabarlo mais tay lu fi fës ci langue politique bi moy hum. euh Macky Sall mën nañ ni mom on peut le c'est au passé. tey ñu ngi wax ak Sénégalais di len wax avenir ëllëgu Sénégal nan lañu wara war en tout cas dëkk bi ci Sénégal teg ko sur les rampes du développement loolu moo tax tey boo xoolee man lu ma jàpp en tout cas euh, stratégie bi nga xam ne mooy consister ku nekk dem natt boppam euh, nekkul stratégie bi nga xam ne day indi dispersion des voix parce que tout simplement ci euh, njeexital bi donc danañu gis que en tout cas opposition bi ñoom ils sont unis autour de l'essentiel wane nañ ko ci F24 bi et que jàpp naa ne ci at yi di ñëw mais dans les calculs maître régime bi au moins day am 30 ndax régime bi dafa and ak armada bo xamné ñom dañ ci gis seen i privilège ñooñu forcément régime bi la ñuy votel muy ñi ñu fal ci gouvernement beeg wala yeneen ramification yi il faut tenir en compte lolu euh, tamit Ndeye Fatou lolu nga gis mais man lu ma jàpp te gëm ko mom hmm. moy bu ñuy demoon natt ci élection yi 17 pour cent sax régime bi duñ ko am. <laughs> loolu nga xalaat. <laughs> moom laa jàpp. en tout cas merci beaucoup maître Abdoulaye Tine ñu di la gërëm ñu bàyyi la nga tàggatoo waxtu bi jeex na. waaw xanaa di la jaajëfal monsieur Diop ci dalal bi. Mm. waxtaan bi am na solo. di en tout cas nuyuwaat euh, Fatou Abdou Ndeye Fatou amoon mbégte aussi jàmm jàkkaarloog sénégalais yi wax ak ñoom ci tolluwaayu askan bi di leen jox tax daje ba beneen yoon. incha très bien ñuy fàttali ne avocat nga ca barreau bu Paris waaye itam di président bu Union sociale libérale. Fatou Abdou jërëjëf. merci beaucoup Ndeye Fatou. merci Mohamed mbokk yi mu nekkoon seen émission seen show dig dajé inshallah allah mu fas yéene ñett.